ñun comme ni ko ñëpp xamee euh, man maay soxna Codou Ngom nekk la secrétaire nationale chargée de la formation professionnelle ci parti réew mi bu Idrissa Seck euh, kenn ku nekk nag ni nga xam rek ngay defee man ni ma xamee noonu laa defee tey ndax man politique dama ko jàppee njër avant tout njëriñu askan bi askan boobu nag tey rawatina soxna yi ci Touba ak jeunesse bi ñoom lañ dajale tey lu toll ci ñaar ci téeméeri nit defal leen ay formation yu jëm ci ce qu'on appelle les activités génératrices de revenu moo xam saabu la moo xam jus la moo xam koko bi nga xamante ñi ngi koy transformé boole ko ak jinjeer di ko commercialiser un peu partout ci dëkk bi jigéen ñi di ci am tuuti ay koom yoo xam ne dañ ko mën a yóbbu seeni kër ñu nag noonu la ñu tàmm politique moo tax tam bi élection locale yi ñëwee sunu participation jëm ci list bi nga xam ni mooy list Benno Bokk Yaakaar fii ci département de Mbacké te honorable Matar Diop jiite ko euh, ñu toftal ci sunu naataango parti di monsieur Mafari Ndiaye macha allah ñu fas yéene leen jàppale ci lii rek lañu mën a jaar mooy li ñu xam pour pour commencer li ñu njëkk a def mooy dañu leen a wutal benn projet de financement boo xam ne mi ngi toll woon ci enveloppe bu cinquante millions ñu sekk ko ak crédit mutuel bu Sénégal donc loolu lañ njëkk a def femmes yooyu nag la ñu dajalewaat dolli ci yeneen femmes yoo xam ne peut-être bëggoon nañ ci financement bi mais yàlla dogal na mënuñu cee jot ou bien bi ñuy ñëw fekk na ñu arrêté ko léegi ñu daal di leen boole ñoom ñëpp may leen ay formation tey nga xam ni ci xayma bu ma yeboon la lu mat ñeenti téeméeri jigéen daje nañ fi tey. donc bii boo ko gisee moom mooy euh, savon carotte donc wan nañ jigéen ñi composants yi c'est-à-dire intrants yi nga xam ne ñooy dugg ci bu ñu koy defar. wan leen ni ñu koy defaree ba defe naa bu ñu fi jógee ak ndimbal yi ñu leen war a joxaat dinañ mën a dem yóbbu ko ci seen ay gox nekk fa ay relais di ko jàngal seen ay moroom bi ci des mooy savon euh, médical savon bi macha allah euh, picc ci yaram heure lu mu mën a doon boo ko sangoo mu éliminer ko bii si topp nag mooy koko jinjeer bi moom également actuellement sénégalais yëpp dañ koo bëgg ñu si bari nag xamuñu woon nuñ koy liggéeye bii tamit moom la ñuy wax savon gommage ñu defaree ko fuddan ak composant yi dugg ci biir yëpp. Euh, ku ko sangoo daal di nga ci gis sa bopp macha allah. defar nañ également des euh, siro naturel yoo xam ni ñi ngi ko defaree lu mel ni di tax am na si yoo xam ne ñi ngi ko defaree bisaab ak yu ñuy defaree jinjeer mën nañ koo def ci mango mën nañ ko def ci buy mën nañ ko def ci orange mën nañ ko def même ci xaal bi donc c'est des euh, potentialités yoo xam ni sunu dëkk bii di Sénégal am na ko. d'ailleurs man sax def naa ci benn programme boo xam ni dama ko ficelé pour que Sénégal région bu nekk en fonction des potentialités yi mu am ñu mën a jël population bi former leen ci loolu suñu paree taxawal leen des unités de production industrielle jël leen employé leen ci ñu di ci liggéey euh, dama ciy joxe souvent euh, boo jëlee fu mel ni région de Diourbel tey. mu nekk dëkk boo xam ne macha allah dafa bari ay marché parce que marché hebdomadaire yi def fi bari beneen bi mooy gàncax yu bari fi la ñuy ñoree parce que bokk na ci bassin arachidier bi te tey gerte googu nga xamante ni ñi ngi koy bay ci dëkk bi bu ñu fexee woon ba sunu doomi dëkk bi di ko transformer au sein de notre pays dina nekk avantage bu rëy boo jëlee Ziguinchor c'est la même chose foofu la fruits yi di ñore donc fruits ya bu ñoree day bari c'est à donc bu ñu former population bi à ce que ñoom ñëpp en partenariat ak l'ITEA ñu former leen ci ay techniques de conservation ak technique de euh, production dinañ mën a liggéey loolu ce qui veut dire que Sénégal gépp dinañ leen mën a couvrir en jus locaux parce que bu ngeen seetloo Sénégal c'est un pays d'importation li ci ëpp ci li ñuy consommer surtout mu jëm ci boisson yooyu lépp dañu koy jéggaani dafa jot nag ñuy consommer li nga xam ni moom la ñuy bayee ci dëkk bi. depuis 2012 laa commencé formation yi ak jigéen ñi peut-être néew doole moo tax mu toll fii ba tey di traîner mais bi ma ko defee 2012 dama pare taxawal unité de production yàlla dimbali ñu li ñu ci bëggoon mu defal ñu ko. demoon nañ ba ku am mariage ku am baptême ku am màggal dangay ñëw passer commande ci usine bi d'ailleurs am na si commande biñ si mujjee am boobu màggalu ngaabu la ñu commandé ñu 1300 jus macha allah loolu la moo ciy sunu yéene dem ba ku am màggal ku am ngénte ak lu mu mën a doon nekk ci dëkk bi li ngay consommé nga jëlee ko fii ci dëkk bi premièrement amul benn produit bu toxine bu toxique en plus de ça coût bi dafa abordable te boo ko ñamee rek xam ne roy du ndiroo ak pire loolu yëpp nag. li ci ëpp solo mooy boobu ba tey ñu ngi dégg le président Macky Sall muy wax ci programme xëy ndaw ñi mu doon programme boo xamante bu ambitieux la nag macha allah ñu ko ciy félicité mais di ko wax ni monsieur le président tey boo fexe woon ba li ñuy bayee ci dëkk bi moo xam li ñuy bay la moo xam li ñuy sàmm la wala li ñuy napp lu mu ci mënti doon ñu fexe ba di ko transformer ci dëkk bi ndaw yi dëkk bi di ko transformer femmes yi di ko transformer ndax lépp fi manqué ba mu des ressources humaines ak ressources matérielles ak euh, matière première li ñu manqué lenn rek la mooy dëggal sunu bopp gëm sunu bopp te xam ni lii lu war a mën a nekk la. Euh, affaire interne la maanaam dafa doon loo xam ni ci sunu biir parti la xewee ndax yàlla dafa dogal bi président Idrissa Seck. demee rejoindre le président Macky Sall dafay def ay nomination fii ci département de Mbacké ginnaaw ba loolu amee mu nommé fi ñeent ñetti nit fekk am na keneen ku mu nommé woon euh, ñu dooleeku ci muy ñeent bi loolu amee kenn ku nekk mu dugal la secrétariat national jox la fa cër donc bi ñu demee ci élection locale yi seen ànd bi bi mu dooree ak léegi bi mooy premier élection bi ci am li ci am mooy ñenn ñi benn kilifa bi peut-être investiture yi neexu ko ndax comme parti réew mi moo gagné département de Mbacké dafa jaadu woon ñu jiital fi ku bokk ci parti bi comme yàlla dogal na nag ñoom lijjanti nañ ko ca kaw ba juboo ci ñun duñu def lu dul ànd ci ak ñoom ci kaw loolu la ñu tànnee Matar Diop jiital ko ci conseil départemental jël Mafari Ndiaye jiital ko ci proportionnel bi man nag yàlla dogal na nekkuma ci liste mais en tant que membre du secrétariat national du parti mi dama am obligation jàpp ci liggéey bi nga xam ne sama frère de parti ak sama sœur de parti ñi ngi koy mëne loolu moo tax d'ailleurs am naa sax mission boo xam ne waroon naa ko doxi depuis le mois de novembre mais je me suis dit que bien que nekkuma ci liste yi mais damay toog ànd ak ñoom ci liggéey bi ba mu jeex ma soog a dem fu may dem noonu laa ko waxee noonu laa ci taxawee ànd ak ma fari ci pré bi investiture yi ba fii ñu toll nii ci président ci euh, euh, biir campagne bi am na nag leneen lu ci xew loo xam ni moom bu ma sañoon ca biir lañ koy lijjantee mais du lu ñuy wax ci mbedd li ci am solo rek mooy di leen xamal ni bis ni ki tey man maa jël sama décision propre ànd ak jigéen ñu ñaawul ñi ànd ak góor yàlla yi ma yàlla booleel ak jeunesse bi taxawal une troisième coordination bi parti réew mi fii ci département de Mbacké ndax fasatuma yéene ànd kenn di dox ci ginnaawam rawatina nag ba ñu yemee cër ñun ñëpp ci politique fii ci département bi. Ah, baax rek baax ci ñun jigéen ñi ñëpp ñun baax na ci ñun ndax wax dëgg yàlla soxna si lim ñu defal ñun amuñu fayam ndax dañoo fekk liñ ne may la jën jox la gaal jàngal li ñuy nappee moo ko gën ndax ku la jàngal amoo fayam ndax lii bu indi woon xaalis bu bari jox ñu ko benn bés lañ koy jëfandikoo daanaka mu jeex ndax soxla yi bari na waaye lii mu ñu defal ku ne kenn ku ci nekk mu def groupe par groupe jàngal ñu jàngal nañu saabu jàngal nañu ay jus jàngal nañu koko ginjeer ak yeneen ak yeneen yu bare bëri yoo xamante ne ñun ñëpp kenn ku ci dellu sa koñ tey jii benn ci man mii nga xam ne aw ma woon métier bu ma demee dinaa former sama équipe bopp boo xam ne dinaa liggéey loo xam ne ku ko gis dig ma ci fekk si te njariñ kese lay doon sant nañ ko nag gërëm nañ ko di ko ñaanal na fi mu bëgg a egg yàlla na fa egg ndax bu demee rek ñun ñu dem barke Serigne Fallou fin waaw waa jox ñu financement financement bu la ñuy jox waaw ndax bi ñun ñëpp suñu koñ ñun ñii rakkam soxna Ngom mu ànd ak ñun ñun ñëpp ku nekk mu jël sa carte d'identité yóbbu la jox la deux cent cinquante mille dégg nga loolu ñun ñëpp la jox ku nekk deux cent cinquante mille te incha allahu rabi dinañ liggéey te dinañ dem ca kanam à de Codou mii Codou Ngom ca kanam ca